Eh, asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu ñu ngi nuyu ku ci nekk sa tur ak sant di leen ziar di leen màggal di leen damoo di leen tiitaroo man la seen mbokk patriote et compatriote sénégalais Mollah Morgun maa ñëw encore di waxtaan ak yéen bon lu may tàmbalee mooy di wax ci son bi déjà son bi génn la qui est un son très engagé euh, ki nga xam ne moo ko produire mooy DJ A la en pure hip hop donc le son lim ci wara a def nena déjà vidéo bientôt la tourner comment vidéo bu doy la sax xoma sax ba xam est-ce que dina jaar ci télé mais lol moy engagement moy buñ je ci ben société yow nga liggéey ci que xamni nit yi dañ lay ragal nit yi dañ lay daw nit yi dañ lay moytu sax manam say say yi wala duñ la teg loolu mooy au moins tu marqué l'histoire de ta génération nga nekk doomu un ancien spermatozoïde futur cadavre marque sa génération ba sa génération kenn du dee dugg ci bàmmeelam te jàppul sa wala xàmmeewu la wala la wala pas donné à n'importe qui dina génération ba kenn du marqué histoire ci ñen nak suñu borom subhanahu wa taala may nañu lolu ak suñu liggé nak ci suñu liggé ci suñu fit ci suñu jom ci suñu ngor moñu may tay liñu am fierté bobu ñu am tay, ba diko ko wax partout et devant ki ku mëna a euh ñu DJ Ala jël nako ko jox nako animateur yëpp mais il s'est trouvé que bu mu génné ba légui ben animateur nekkul Sénégal tek ko animateur hip hop c'est normal parce que engagement vie, il faut nga am full il faut nga bañ a dans doon il faut aussi nga jël ses responsabilités day wane encore une fois que l'endormissement de de la jeunesse sénégalaise bokk na ci les médias mainstream c'est-à-dire animateurs yi médias yi dëgg dañ koy nëbb duñ ko nangoo wone dañ koy jéem a suul loolu nag ci suñu société nu mu yàqoo ba nga xam ni médias yi yàq fen naxa sa xandang caaxaan la ñuy gën a promouvoir loolu moo nekk ci médias yëpp tant yaa ngi foo yaa ngi ree mun nga nekk ci médias yi boo commencé dëggal lan àccee ñu xeex nga gis leen ñu rétrécir dellu ci seen pooju yaay yi làqatu fa donc jàpp leen ni sound bi mi ngi ci médias yëpp mais ba légui déggu leen ndakaaru njaay jal jóob kenn ku am sañ-sañ def ko luma ci gëna a neex it l'histoire Tiendra que en 2023 les rappeurs les plus engagés ñi nga xam ne nañ son yu engagé je pense que l'histoire Tiendra ak fu mëna mën doon en 2023 mo la gënë na sound bo xamni ben radio wala ben média ñi mëngo ko teg. loolu mbégte la loolu fierté la encore une fois yuñ nar a nettali suñuy sët yuñ nar a nettali suñuy doom yuñ nettali suñu jarbaat seen baay en mille vingt bu ñëpp ragalee moom moo songu ñëpp dawee moo taxaw bu ñëpp rappeurs yi ragal wax ci gouvernement bi moo ko wax bu ragal yi rappeurs yi ragalee wax gouvernement ba moo ko wax loolu fierté la ñun fierté boobu rek lañ ci am mooy ëllëg li ñu nar a nettali suñuy njaboot nga xam ne bu ñu génnee di ko nettali ñoom it seeni i ñi nga xam ne ñi ngi fi tey responsa daw responsabilité ñun suñuy doom ak suñuy set bu ñu ñëwee taxaw di wax ak ñooñu naan leen sama maam nee na amoon na fi jamono sa maam fekkee na ko nee na ba muy engagé wu bay def tell sa maam supporter la fa woon tàccu rek la fa munoon wala xéede la fa woon soxor rek la fa munoon def mais sama maam nee na ba muy def ñu ne kan mooy sama mu ne Mollah Morgun ne ah loolu dëgg la sama nee na amoon na ku tuddoon Mollah Morgun fii fa dee bi yàgg ñu ñëpp mais l'histoire retiendra bu ñu xoolee tey ci archive dañ gis ni ah sama maam nee wax na dëgg sa maam sa maam bu tuddoon Mollah Morgun xeex na fi lii def na fi lii woy yi day day des dans l'histoire woy yi suñuy doom danañ ko jël di ko teg ci 2023 fi rappeurs yi amuñu fitu wax ci Macky Sall tey jii boo dégloo média yi je t'aime I love you rek moo ci nekk moo tax rappeur yëpp ci loolu la ñuy dox booy yi gars ci loolu je t'aime I love you ego trip waaw frérot Jacques dormez-vous moo nekk ci média yi foo foo bi ond boo bis frérot Jacques kii naan la dormez-vous kii naan la je t'aime I love you loolu moo fay daw moo nekk ci média yi mu mel ni artistes yi newuñu di xeex pour xeex système bi fi ne non booy xeex a sound bi amuñu fi du sound donc euh, voilà ça montre que c'est euh, une société moins mo mais nous focus wa duñu té ñu focus ci lu ñu euh, bi dina plateforme mi ngi Deezer mi ngi Spotify mi ngi partout sound bi mi ngi partout foo ubbi mi ngi fa mun nga ko streaming mais loolu taxuñoo jóg lu ñu tax jóg lii la mooy ñu gën a focus ci komba bi wax naa leen ni ay noon duñu ñu dooni xarit mukk combat bi yéen mënu leen jëli ay information ci waa APR yi xeex seen biir boo leen bëggee daanu ca loolu ngeen dem fan ne dangeen di wuti information parce que ñoom seen biir wax naa leen l'affaire aji Sarr Ousmane Sonko est une affaire bu yomb pour enrichir képp ko bëgg a enrichiru mun nga dem jafandu ci l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr tekkiloo ñu bari may na ñu bari tur may nañu bari doole may nañu bari it ay terrain ay kër ay oto lu ne may na leen ko l'affaire Ousmane Sonko aji Sarr le problème c'est Ousmane Sonko c'est pas Adji Sarr parce que Ousmane Sonko moo nekk benn leader politique bu ñu ragal bu ñuy calculer bu ñu jàpp ni mun na leen daane loolu moo tax ñoom ñu bëgg a liquider Ousmane Sonko par tous les moyens par tous les moyens donc Sénégal politique dafa salte politique fen la sos rambaaj yàq mystique jaral na leen lu ne te boo ku ku nekk nit boo xoolee ni politique Sénégal di doxee nga xam ni lu salte la nit yi koy def sax gëmuñu yàlla amuñu pureté dañoo lëndëm dañoo ñuul dañu salte boo seetloo amuñu benn pureté parce que dañuy gis dëgg dagg li leen ci neex génne donc ñooñu mi ngi nëbb dëgg kooku du maanaam politique sénégalaise boo xoolee ñu ci bëri ñu ci sóobu cent pour cent du ñuy du nitu safara lañ nitu safara boo xoolee au ay nitu safara lañ amuñu baatin ba setuñu parce que la politique elle est malsaine au Sénégal donc ku ci nekk rek lala la arrangé kese ngay dagg dugal ak foo mën a bokk politique sénégal boo buggee xool dëgg doo ko fekk ci politique sénégalaise la politique sénégalaise dëgg amu fa kenn du fa war dëgg man bu ma gisee doomu aadama bu toog di xool ci politique sénégalaise dëgg yaa ngi nax sa bopp dëgg amu fa ku ci nekk yaa ngi teg dil ku ci nekk yaa ngi fen ku ci nekk yaa ngi détourner l'opinion ku ci nekk yaa ngi wut luy populisme ku ci nekk yooyu yaa ngi jéem manipuler ku ci nekk yaa ngi jéem teg ci ay fen loolu mooy la politique sénégalaise

gaa yi génne nañ ko wax duñ ci génnaat di wax tant amul lu ñu war a jóg pour yàq wala lu ñu war a jóg pour defar c'est fini luñ ci war a wax wax nañ ko ci ñoom bu ñu dawee ñun dañuy daw topp leen ñoom buñ taxawee ñun dañuy taxaw jamono ji l'affaire Adji Sarr Ousmane Sonko dañ taxaw donc moo tax mënuñu ñëw di leen forcer wax woo xam ni pour bëgg leen wax rek quoi non ñun on n'est pas nee nañ leen ñun paruñu ci benn parti Ousmane Sonko yónniwuñu yabaluñu duñu militant am duñu doomam duñu jarbaatam duñu fiisam duñu coggam doxaluñ ko nekkaluñ ko fi il faut que ça soit clair Macky nekkuñu ci partam duñu militant am duñu fiisam duñu coggam duñu markatam dañuy dem ak suñu dignité di fight donc ñun nekk luñ fi toog luñ ne Ousmane Sonko xose nañ ko ñu war a génn mel ni ñun Ousmane Sonko moo ñuy fay wala moo ñuy yabal ba ñu jël sañu àdduna yëpp ko de Ousmane déedéet Ousmane moomu ñu moomuñu ñu duñ jël sañu àdduna di ko ko jox suñu àdduna dañuy ñëw fu ñu nekkoon ñu nekk fa di dox buñ gisee bu ñu ko tooñee ñu génn bés buñ ko waxalee luñ ko war a waxal ñu génn bés bu ñu ko def lu ko war def maanaam bu subiree injustice comme ni ñu ko defalee ñeneen ñun ñu defal ko ko mais ñun jëluñu suñu àdduna yëpp fractionné ko ci Ousmane Sonko ñu laal Ousmane Sonko moo laa génnal wax non moo laa Ousmane ko fayu ko du fiisam moo laa du militant Ousmane Sonko moo laa bokkul ci parti Ousmane Sonko donc moom Ousmane ko takku ko buum ba lu lu am rek mu war a génn il faut que ça soit clair mooy lu ma leen yàgg wax. man may vie parce que vie dunduluma vie musuma vie ñeex sax donc man neewuma vie. adama wut vie ma fou éperdument magnifiquement dundal la ak sama yoruma donc ma fou des vues, ni rien autre li ma war a wax maa koy wax après dem sama yoon te sama wax day yegg fépp par force doole mbaam parce que kenn mënu ko téye wax la wax fépp lay dem ku soxla fii moom mooy balaa ngay def live ne dans une heure de temps live man def ma loolu du vie dundalu ma un franc vie musuma dundal am musuma lekk un franc ci vie ñu ñu bëgg fii da bind live dans une heure de temps di xaar nekk lii laay wax jox siise bi gaa yi di xaar mais man damay heure buma neex laay juk instant il est fi 17h24 ma ma wour ma ni sax ñepp ngi xam nga kan la nurul ben liveur bo xamne xaw nañ jégenté xam ngeen kan la Cheikh Omar Diagne. il s'en fout des vues Cheikh Omar Diagne day bàyyi ba 4h du matin Sénégal ñepp di nalaw mu génn def ben live am dem yoram j'aime bien Cheikh Omar Diagne 4h du matin la lay defal live dem yonam ngay yewu setan ya xam xoolal dewul be mi ngi ci combat am ken dak ko xex nak Cheikh Omar Diagne. amul ku ko ci Sénégal amul mais il te fait des live 4 heures du matin des live de 2 heures du matin man non lay live amul heure damay tok bam je m'en fous ko fi baye da ngay dans suba fek ans. quinze vues vues di di ko temps lay amal solo mais man amuluma solo man luma wara wax ans. ko ans. ñoy xam ñoy donc ñom pour ñom la donc man di wéri wi parce que amul fenn fu koy aw ma YouTube aw ma aw ma Snapchat aw ma compte xaw ma lan fu ngeen di jaay ay affaire yooyu daal aw ma ko daal aw ma ko man jaayu ma ay vie ay vie ma sens mais nee naa leen chaque jour dee leen dox ci dëgg boo leen di dox ci dëgg yàlla di leen jàppale parce que dëgg ab kàddu suñu borom la yàllaa ko yor démb dégg ngeen ni vidéo rek ku nekk génn kon vidéo bi lañuy wax Adji Sarr Ousmane Sonko Adji saar la woon vidéo non vidéo ça n'a rien à voir de Adji Sarr Ousmane Sonko vidéo boobu dafa sax amul affaire Ousmane Sonko gars yi dañ koo def lekk Ousmane Sonko laalo la wax waxuma Adji Sarr rek Ousmane Sonko lekk la lekk pour texe texe pour texe la buñ bëggoon jaay suñu ngor jaay nañ ko bu yàgg yàgg kon heure bi kenn waxatuñu kon ñu ngi Dakar ñu ngi fa yor ay immeuble teg kenn dàq wax kenn dàq ñoo xeex ay vrai xeexkat lañ kenn dàquñu ko kon fu Californie di am ñu koy jox 4 x bu bees sàq muy dem di natt man avion laa fa am avion mais dama gëm sama xex nek ci donc bo leen amna gaay nak bon c'est vrai que conviction ñoo man conviction lay démé mom lay xexé ak ay principe amna xam ay vues lañu wër motax lu dañuy génn ñu bari des vidéos, oui l'affaire Adji le soir la soi-disant vidéo là mon qui a aussi Mohamed Mbaye Lek 10 millions nangam nang non c'est ça c'est pas passé comme ça c'est faux c'est pas l'affaire Adji Ousmane Sonko parce que Ousmane Sonko gagne-pain là. son nom gagne-pain là. Il aadama a dañuy yeewu dañuy luñ la Gabriel Kane lekk ba day ki nga xam ni moom mooy Tange Tandian lekk ba day nii mënatul lekk ndax la gu rëy mu dem yoonam moom la ñoom Anita lekk ba day nii moom la ñoom François Hélène Gaye lekk ba day nii affaire aji deru Ousmane Sonko ku ci lekk sa biir fees ku ci lekk sa biir fees deram xam naa nag moo genre kii la quoi genre nag la nagu àll parce que gars yi ci ci deru Ousmane Sonko la wulli pour suuf ci la ñuy dundee ay ay yap Ousmane Sonko la ñuy dundee ñoom ñëpp am nañ ay kër ñi yor ay auto, ñi yor ay ah, ku ci nekk daa am na lu nga yor ci koo xam ne la SDF la newoon lëma ñëw tey di di wàcc ay camion matériel médical di maye di yor si ay ñaari auto auto buy yóbbu doomam muy jàngi auto moom bosam te koo xam ne bu muy ñëw Sénégal la wax ci gi la keur Massar seen keur am ndox fess fa del muy xuus kooku mo yor tay ñaari auto yor bu muy dawala bas basam yor bu yub domam école muy yor ñaari chauffeur <laughs> donc affaire Ousmane Sonko ku ci ku bëgg dund ci yar der Ousmane Sonko nga yor diko lek li ci dund loolu motax ñom ñi yoré lu ñu yor mais kenn ñeewu len ko sincère ñew ñewul ñu len ko ñewantaluñ len ko parce que du du lu set on est fier ci suñu xif on est fier ci suñu mar on est fier ci luñuy lek lekk muy lekk bu lew té barkel ma tax xooluñu sax ñoom luñuy def mais vidéo bu ngeen di dégg yoy vidéo amut Seydi Mouhamed Mbaye yor ben vidéo bu muy jaay wala bu muy def keneen dafa am ay ñoo xam ni dañuy yeewu parce que ministre yi fi nekk yëpp presque Sénégal ci gouvernement bi dañoo saaga Ousmane Sonko moo tax ñu def leen ministre ñi toogoon yëpp dañoo wone ni dañoo saaga Ousmane Sonko moo may ñu doon ay ministre Anita Ndiaye Anita Diop da doon wër ci plateau yi ba suñ joon yàlla tey di saaga Ousmane songo moo ko def ministre de la jeunesse Mame Mbaye Niang affaire Ousmane Sonko nekkuloon ministre saaga Ousmane Sonko moo ko def ministre donc ñu ñoom xam nañ ni ku saaga Ousmane Sonko texe parce que ministre yi ñu fi gis yëpp PDG yi ñu fi gis yëpp ñëpp directeur généraux yeeg yëpp du quatre-vingt pour cent yeeg saaga Sonko wër ci plateau yi moo leen may lu ñu am donc boo bëggee am ci mbirum Ousmane Sonko da nga naan yor naa. boo ne yor naa rek gars yi dañuy ñëw vautours yi dañuy ñëw parce que dafa am ñoo xam ni dañuy liggéey ci yor naa ci l'affaire Ousmane Sonko l'affaire Ousmane Sonko je parle même pas de Adji Sarr l'affaire Ousmane Sonko boo nee yor naa rek day mel ni yor nga néew boo yor naa day mel ni yor nga néew boo yoree néew vautours yi dañuy ñëw ñaar yi dañuy ñëw moo tax man sa même sama plan bi ma def yor naa rek wax naa leen ko ci laaj ma ne leen yor naa bi ma wax rek tax na vautour APR yeeg ñëpp ñëw même ba Anita Diop sax ñëw na di reetaan di signé bañ moo laa moo laa ma ne ko lakkal ca xaj mu daw ne waxeet même Anita bokk na ci ñu ñëw ay vautour lañ waa APR yi ñëpp taxaw ñu bari ñëw gën a di signé bañ <laughs> na ah am na lekk kaa la ñu lekk ndoo masaaga seen ndey ñoom ñëpp ñu daw bërit donc affaire euh, Ousmane Sonko ñoom dañuy jàpp ni ab néew la bu ñu war a lekk bu ñu war a dundee ñoom ñëpp dañ ciy dund. alors boo nee yor naa rek ñu ne kii yor na mid dañuy ñëw euh, comme ay vautour donc loolu la Sir Mohamed mbay xam Sir Mohamed Mbaye diggante affaire Adji Sarr Ousmane Sonko takk na fi jabar Thiès ñëw jël jabaram indi Ndakaaru luwe ci kër yi cher yi. xëyut gontu Seydou Mohamed Mbaye musul dugg école jàng na alxuraan nag musul dugg école boo ko bindaloon turam mënu ko liir école française laay wax te jàng na alxuraan mokkalu ci nag jaar na fa comme ñun ñi jàng nañ alxuraan donc ku dem takki Cees ba mu sa sa sa xale bu rafet indi Ndakaaru war a fay loyer war a fay courant war a fay et cetera et cetera dugg ci taxi yi di dem ak ñëw kooku moom tamit day xalaat nan la war a def pour lekk ci waxu leen vidéo Ousmane Sonko ay daf leen la ni yor naa vidéo léegi yor naa vidéo boobu moom Sidi Mohamed Mbaye mi ngi ko wax waa ji yi nga xam ne moom tamit moom tey tey laa ko gis muy wëndaalu ci télé yi ca yàlla Sénégal Sénégal daal belefete bu fa jub siw Sénégal Sénégal mooy dëkku mbalit mbalit yi ñoo am ñoo am valeur or duñ ko for jamaa duñ ko for du ñuy dof Sénégal dafa am jamaa am or ci kaw mbalit gars yi mbalit mi la ñuy for valoriser ko di daw bàyyi fa jamaa bi moo tax dof bu jóg Sénégal rek wala golo gu jóg Sénégal rek ñu siiwal ko muy wër plateau yi plateau moom mooy ñeexu ñebbe Sénégal toog ci plateau moom jaru sax nga ciy photo parce que plateau kenn xàmmeetul bu baax ak bu bon bi plateau les gens ci plateau yëpp la ñuy toog di wax lu neex nga wax leen ne Sénégal moom du du dëkk bu am valeur ñu sax luy valeur tant que doonoo mbalit la valoriser donc Sir Mohamed Mbaye moo gis waa jooju ne ko yor naa xam nga dafa am boo duggee ci seen système dafa am lu may lu ñuy loo xam ni mi ngi fa boo nee sarax dugg dañuy wax ni dafa am ñoo xam dañuy dañ lay wax naan waa am na ay gel yoo xam ni. Ousmane Sonko moo leen doon doxaan quoi donc gel yooyu yor nañ ay affaire Ousmane Sonko ñi naan la gel bi am na ay audioom yu mu koy doxaan nii ñi naan gel bi yor na sax ay vidéoom gel bi gel bi yor na ay nangam gel bi léegi dañ naan la gel yooyu ay ex gelu Ousmane Sonko lañ il faut dugg seen système bi nag pour xam dañ naan la ay ex gelu Ousmane Sonko lañ léegi ñii yor nañ vidéo ñii yor nañ kii ñii yor nañ mu def taatu neen ñii yor nañ ko ci nekk loolu ngay téye léegi dafay mel ni yow da dem à la chasse de ces ex-gel de Ousmane Sonko entre guillemets léegi da dem ba ne ah xam naa benn gel bu tudd Binte lu sant Njaay ne gel génn naa Ousmane mais si mois yor na ay ay ojo Ousmane Sonko yor na ay vidéo yu Ousmane Sonko yor na ay lii yu Ousmane Sonko boo xasee ba wax loolu rek nga wax ko kenn ku rataxle ku mel ni seen wax yi di doon wër ci plateau yi am na ko ma ne sax yàgg naa wër ci plateau yi mais man comme man daraay Sénégal intéressé ma xaw ma dara man Sénégal nit mun na fa toj cent ans ma ko parce que man intéressé wuñ ma daraay Sénégal intéressé wu ma du ma yeewu ba leen di xool lijjantiwuma leen sax moo tax mun naa wax ay conneries tant que tooguma ak sénégalais mënu ma xam ay conneries nit ki man nu may gis nii parce que dara ci ñoom intéressé wu ma du ma yeewu ba lijjanti leen dinaa yeewu nag lijjanti lii dal seen kaw mais ñoom bu ma leen liggéey parce ay man man jàpp naa ne ay victimes lañ ñoom ku ci dee ma ne rest in peace aux victimes ku ci dee ma ne man ma jaale la ne victime victime dee na parce que xamuñ dara lu xew ci seen réew ñoom dañuy tëñax tëñaxi nii rek donc man bu ma yeewoo ñu nekk ci kaw laay lijjanti xool lan la ñuy waajal pour dóor ko ay bomb yu ñu naru dóor seen société donc ñi te ñooñu ñi nekk ci kaw bomb ñi préparé ñi nekk ci suuf ñoom ay ree la ñuy def ay ree <laughs> donc ñooñu da nga leen di xool di leen yërëm moo ma ne woon yërmande bu rëy laa yor ci ñoom moo tax ku ci génn ci ñoom rek dama jàpp victime la donc ñoom dañuy dafa mel ni dañuy dem à à l'assaut des informations de mœurs sur Ousmane Sonko ku ci yeewu loolu ngay def léegi boo ñëwee taxaw comme nu Sidi Mouhamed mbay def mais dafa dóor waa ji def na ko yor na xam na ay gel yoo xam ne ay ex gelu Ousmane Sonko lañ yoo xam ne jox nañ ko ay ojo ak ay vidéo mais bëgguñoo feeñ léegi moom Sidi Mouhamed mbay laaj waajooju waajooju wax ak waaji waa ji dem dem ci beneen ay autorité moom tam jàmm ne Sidi Mohamed am na ay audio ak ay vidéo ay ex gelu Ousmane Sonko tout affaire yooyu parce que ñoom ñoom tamit autorité yooyu moom la ñuy jël pour mun ci doon ministre wala pour mun ci doon maire pour mun ci doon député wala pour mun ci am doole ku ci nekk da am lu ngay wut dafa am ay racketeur dafa am ñoo xam ni ñi nekk ci kaw ñoom dañoo bugg am place donc boo indee dara ci Ousmane Sonko rek da ngay am place donc ñoom it seen millions la ñuy dajale teg comme mercato di jënd affaire ci lu jëm ci Ousmane Sonko léegi Sidi Mohamed Mbaye dafa dóor waa ji waa ji dem ci ay autorité xamal ko ne Sidi Mohamed xam na ay ex gelu Ousmane Sonko yu ay vidéo yu am ay image yu am ay waxuma Adji Sarr nag ah bon waaw mi ko def ci clé léegi waa ji moo dem ci ay autorité fu bëri la samp nag fu bëri du benn autorité kay fu bëri la samp parce que autorité yooyu tam dañoo bëgg a ñoom tamit dañoo bëgg a toog te gis nañu seeni morom dañoo wax ci Ousmane Sonko lu ñaaw moo tax ñu toog te ñoom tam bugg nañ toog uuf kees gi donc bu ñu amee lan luñ mun a for ci Sonko indi ko dañuy dañuy falu noonu la demee waa ji ci boppam moom Siri Mohamed mbay moo ko laaj xaalis ne ko léegi pour mu mun a dem ci ex gelu Ousmane Sonko yooyu ñu jox ma information parce que bëgguñoo siw ñu jox ma information yooyu man il faut man ma teg ci ñoom 15 millions. 15 millions la tête, de 15 millions pour ñu teg ci 15 millions Nous boy bi di waxaale Boy bi di te boy bi ci boppam la wax jëlul jëlul 10 millions de Dé Nous jëlul 10 millions Nous bi dafa dafa encaissé ay millions ah, dafa Nous ay millions jëlul 10 millions 10 millions la Nous dafa Sidi Mohamed Mbaye 15 millions la ko laaj mu waxaale ak Sidi Mohamed Mbaye ba 10 millions dem laaj 15 millions waxu leen lépp de booy bi encaissé cinq millions dugal ci daanam moom booy bii di wër man xaw ma turam jël 10 millions dem jox ko Sidi Mohamed Mbaye. Sidi Mohamed mbay comme encaissé na 10 millions moom tam xamatul lu muy def mu jël ab kelem comme moo ko waxoon kele bi mu jël kele bi rek jox ko ko dem yoonam affaire dëmm la ñuy lekkante seen biir. léegi waa ji moom encaissé na 5 millions 15 millions la mu encaissé 5 millions jël 10 millions ya jox Sidi Mohamed Sidi lekk 10 millions ya 10 millions sénégalais la sénégalais maa ngi gis ñuy wax ne mais seen 10 seen 15 moo dem autorité bi day demaat jëlaat beneen autorité bi day dem jëlaat beneen beneen 15 millions rek moom ñàkkul de booy bi moom mooy wër ci kii waaw di porter plainte te moomul moomaanul moom moom moom kay 5 la laal Sidi Mohamed dóor 10. mu mu siisu autorité ñu jox autorité bi clé yi autorité dugal xool gisul dara waaw mais jeune homme gisuma dara ah non xaaral ma dem ci cinéma non non non non calme non garaawul garaawul garaawul parce que autorité boobu noonu du 15 millions am déedéet du 15 millions moom loolu la débloqué mais 15 millions sénégalais la sénégalais la moom mun na ko ñàkk moom turam bëggul mu feeñ rek moom bëggul turam feeñ ci moom kese léegi nag booy bi ci boppam moo toog siisu. ne ma nan la lek 5 millions sidou Mouhamed Mbaye lek 10 millions ba pare kële bi amul dara mais boy bi du ko def motax mu nan muy wax nan non sen yon newu ci man ak Sidi la. <coughs> parce que mënul nangu ni mom mu lek 5 Sidi lek 10 ci ay jaaxaat mais autorité bi mom da daw nangul turam feñ nangul santam feñ autorité je parle d' autorité. ngeen déglu ba ma ba pare ken du ma soroxo soroxe donc autorité boobu x mom ci bopam né mom engagé wu ci donc affaire u APR la affaire u dëmm la affaire u lekkante la affaire u dorante la voilà le gars yoonam nek ci mom da nga jox kele rek mu yobul autorité ba autorité bi mo ubi xol xamni ni dara new fi le gars yoonam new ci le gars am mais ay baadu la lañ cinq millions la yor rek mom le gars 15 la laajte ñu jox ko 15 mu jël 5 jox ko Sidi Mohamed 10 donc boko joxé joxee du fi nek naan day vérifier yoonam nek ci mom dur nag 5 am Mom japp na ni Sidi Mohamed perte na parce que Sidi Mohamed da koy gëm lo ni 10 yi dama koy jox gel yi. gel yi ñoo jox information yi na ko ci kele bi donc gel yi ñoo laaj 10 yi léegi day jël comme dafa gëm lo waji ñaari gel yu fo la day mel ni ku jox ben gel bi 5 millions benen gel bi 5 millions lay waji amna 5 millions. kon doo ko jox ay clé muy dem di branché ay clé naan day xooli moom yàkkamti na moom ba jox ko autorité bi ba taxawee ne autorité bi tamit moom xool quinze millions yooyu yu mu génne moom nan la ci mun a amee cent 150 millions wala un milliard 500 1 milliard 500 mille millions. loolu mooy deal bi rek donc kooku moom bu doon yow mii doo fi nekk naa da ngay branché kele il faut nga nek intelligent pour mun blanger kay bi pour mun a mais bro yow mi am fukki dërëm xëy am ben 5 millions nit ci ci ay caa naka sa xandak ci jël kele transmettre do fi nek nan da ngay da ngay brancher nan da ngay liccenti bu doon yow mi ak sa xonet ak sa son do fi nek nan da ngay wëri ordinateur nan da ngay brancher kele bu dé ab bandi bu melni man la nak damay jël sama temps brancher sàcc sax image duggal ko ci benen kele duggal jox ko kele ba jox ko benen kele ba fekk man amna image image yoy mo continuer di ci dóor ñenen lolou il faut réfléchi dof yi ni taxaw ci plateau yi tam mbaambaalu yi amuñu bopp amuñu <laughs> amuñu bopp ingénierie sociale boobu nekkul ci ñoom du ñuy bandi dañu bandi bandi nii rek média bee la mais du ñuy bandi amuñu cerveau mais bu doon man mi mu tegu ci man dama koy rëkkati exfiltré ko jël même image yi dugal sama clé jox clé ba yor naa image yi man tam ma ciy dóoraat di continuer de boobaa dootu soxla ci Sidi Mouhamed Mbaye saa yu ma soxlaa rek dama naan la am naa clé bi mi ngi nii rek dóor di mun naa cee liggéey xaalis bu bare bare bare bare eh, moom dof la moom dof cinq yi la gis rek tiit donc affaire bi histoire bi nii la demee du affaire Adji Sarr du affaire Ousmane Sonko affaire Ousmane Sonko la du us Adji Sarr Ousmane affaire Ousmane Sonko la kon ñi leen di wax naan ay image vidéo bu ma leen doon wax noonu vidéo boobu soi-disant vidéo bu ma leen du boobu boobu ñu bëri ci yàkkamti mais boobu man maa ngi ciy liggéey liggéey bu doy waar te bés bu jotee wax naa leen ko dinaa génn wax leen maa ngi ciy liggéey liggéey bu doy waar ak ay kilifa nag ay kilifa tam yu am bopp yàlla may yàlla may ci xam-xam ñu ngi ciy déggoo ñu ngi ciy waxtaan ñu ngi ciy placé pion ñu ngi ci def ñu ñi ma war a liggéey maa ngi liggéey ñoom ci loolu te maa ngi koy développé bu baax a baax a baax macha allah donc yooyu yàkkamtiwuma ko.